sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha maaleykum salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziare di leen jaajëfal tey nag ñi ngi fi nga xam ne mooy bayti bu ñu ne bayti nag xel yëpp day dem ci Daara Khoudoss rawatina ci màggalu Daara Khoudoss gi nga xam ne ñi ngi koy waajal tey nag dañu am lu rëy loo xam ne mi ngi am fii ci biir bayti turandoo yi nga xam ne mooy turandoo Cheikh Modou Moustapha tey ñu daal di àndandoo ñoom ñëpp bépp daayira boo xam ne turandoo sëñ Modou Moustapha nga fa rek ñu daal di àndandoo tey ñëw fii ci bayti di ziare si xalifa bi nga xam ne mooy xalifa Daara Khoudoss yaakaar naa tey ñi ngi ci alxamis su ku ne alxamis ne àjjuma ne samedi xam ne màggalu Daara Khoudoss agsi na na ba pare comme ni ñu ko àndandoo rek ñun ñëpp depuis boobu ba di liggéey liggéey bu am solo ci waajtaayu màggalu Daaru Xudoos gi comme ni ñu ko defee woon dem ci këri kilifa yu bëri tey ne ñi ngi fi ziyaare bi nga xam ne mooy turandoo Cheikh Modou Moustapha yi ñëw di ziyaare si xalifa bi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xudoos kon ni lañ koy toppalee ba ci biir ndax ne instant bi ñi toog di préparer ziyaare bi xaar xalifa bi génn rek ñu fas yéene koo ziyaare ñëwal seen ziyaare fas mooy xalifa bi sigil te weytoo madru su fekkoon da laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha ci sa waajuru sàll wu tedd wa duppee leen ko kenn ku ci nekk am loo yëg ci sa ba mënatu téye sa bopp ci moom nga ñëw fii tey joxe sa bopp ñu joxe si ñu joxe suñu bopp ci sa kanam war na ne sa waajur wa day tudde gi ñu ko tudde rëccuwuñ ko kenn ku ci nekk li nga yëg ba ñëw fi yaa ko xamal sa bopp kenn waxu la ko bi nga ñëwee bi ñëwee fekk nañ fi jëmm ju sell muy moom mii ku neex àndal koo xam du la fakkatal du la sonal du la teg dann mitit saa soo ñëwee ci moom day mel ni moroomam sa moroom nga toogal te loolu ak baaxam ak woyofam ndax bu ko neexoon mel nem te kon faw ñu wëri ko ba gis ko ndax sëñ Mourou Moustapha moo ñu tamponné marqué ñu ba mënuñoo toog te liggéeyaluñ ko kon nag bu ñëwee mu jox ñu liggéey bu toll nii ñu tàmbali ko ci juróom benn weer mu toll fii xam nañ ne bëgg ñoo dimbale képp a tax mu def ko ñun ñii du sunu njàmbaar du sunu dara ndax Daaru Xuddoos ku ne xam na li fi nekk di la xamal ne ñun dey fas nañ yéene lépp loo ñu sant luñ ci mën daañ ko def daañ def ba def lu luñ mënoon ni ko suñ ma soññee sama waxee léegi loolu def léegi foofu la ñëpp nekk loolu mu def defaale na ñëpp joxe boppam joxe waale ñëpp suñu bopp ndax amuñ ñu may sëñ Tuubaa amuñ ñu may sëñ Mudu Mustafaa te yaa ko fi nekkal te gis nañ sab taxawaay kon daal Moustapha yi ñoom ñi ngi nii tey ci sa kanam fas yéene say ndigal duñ ci mooy dara lépp loo ñu digal dañ ko def fas yéene loo ñuy tere ñu seen ñu ci loolu moom ñu ngi la koy leeral bis ni ki tey kon nag liggéey bi dañ koo tàmbali woon ci juróom benn weer la toll ak i fan mu toll fii ñu ci sant baax sëñ Moustapha sëñ Saliou mi nga xam ne moom ñëpp xam nañ taxawaayam moom lim ci def kenn dus nañu woon sax toog fii di ko tudd liñ ci xam rek def naa yaa ko gën a xam kon moom wax nañ ne moom lépp mooma Moustapha yi ñu ci war a sant bari na man nag damay jël sama engagement bopp suñu Moustapha Dieng ndogal mi ak suñu mii ak suñu Moustapha Ndaw mee ak suñu Moustapha Diané Moustapha Ndoy mii ak Moustapha yi ma war a tudd Moustapha Dieng ñii ñëpp daaw ba ren ñu ngi fi biñ fi jóg daaw ba du seen ñooy daje fii daaw ba ren kenn ku ci manqué amu ci ñii koo ci woo. fii lay wuyoo talaata bu jot fii ñu ñuy daj ba gee ngir luy doxal yëf kon bu sun borom dogalee tay ñi ñëw fi teew ci sa kanam kon bu sun borom dogalee tey ñu teew ci sa kanam war nañ la leeral seen pass pass ak seenub liggéey xamni ni liggéey bi fu mu tollu ñooma man dañ ma jital kep señ mii ma nekkal ko fi señ mu soom señ mbàkki madina mi waaye defuma ci dara ñoom ñoo def lépp jëwlin yi nga xam ne ñooy ngànk daayira bi ak ñi topp ci ñoom ndax buñ ñànkee daayira bi te amuñ ay membre it daayira bi du dox kon Moustapha yi ne Ndakaarook yi ne bitim réew ak sëñ Moustapha Sylla ci ñëw ñëpp dugal nañ seen loxo ak ñu tudd Moustapha sax def nañ seen loxo na leer na liggéey bi daal mbooleem kër yëpp ma dugal nañ seen loxo kër sëñ Modou Moustapha gépp ci seen loxo dañ ko sagale nag tudd ñu ko waaye ñëpp a ci def seen loxo kon nga xam ne ñaan gi na ko boole ñëpp suñ Cheikh Ndigal Fall tey jii la fi mujj yónnee kon xam ne kër si mudum soit gep luy daal ko rek dugal nga sa loxo ci liggéey bi te loolu boo ñu ko santoon ñun dañu am taw fexe fekke loolu kon nag bu ñu santee ñu liggéey liggéey tol nii suñ borom dogal ñi ngi ñaan ñu àggale ko ci jàmm ak salam des na tuuti nag li ci des suñu soit dana ko leeral gannaaw bu sant yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam sant cheikhul khadim ñaanal sëñ ahmadou muxtaar mi su borom bàyyi ko fi suñ kanam sëñ moustapha nee na sant na fu am Moustapha jóge waaye nag Moustapha yi dañoo joxaat sëñ mënu saa njukka ndax xam ne ni la am ñun ñii dëkk Tindodi di dong rek ci Moustapha yi ñoom ñoo dajale ne kaamil yi nañ koy dajalee Tindodi ca Usnu Mahab di ko barkeeloo ngir sëñ Mourou Moustapha waaw loolu na ko ñëpp xam kon nañ xam ne ñu mustafaa yi ñoo jël kaamil yi dajalee ko Usnu Mahab ngir barkeeloo ci sëñ Mourou Moustapha ma nekkal leen fa. moo tax ñu dajale kaamil yi bu siyaara jotee nu jóge usumaab ànd ak ay Moustapha yu tànk yee tuuti ak seen way jur yu jigéen ngir taxaw gi sa kanam ngir wane ne Moustapha yi lii rek lañu barkeeloo waaye noo ngi la ñaanal daal araf yu toll na arafi alquran mbaaxam nga sellam nga màggam nga moom alquran yàlla ko yàlla sotti ci sa kaw la sëñ Tuubaa waxoon ne ibaatu man jàlla ani tahadudi li xaladul barakati yu ma di yàlla na yàlla tëbb sa barke barke sëñ Tuubaa sa fanu yàlla nay kiimaan wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. juróom-ñaari euh, section yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir réew mi euh, wala juróom-ñett kon dañuy jox suñu soixante la mu dugg ci liggéey bi leeral bu ko fee ñi teew am luñ ci xam xam naa duñ mën a xam lépp waaye ñu am luñ ci xam. di ñaan sunu jëwriñ sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Ahmadul Muxtaar bi. yàgg ci suñ kanam lool te ànd ak wér njabootug Cheikh Moustapha gépp di ko ñaanal mbokkam mu tedd ma di Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi te ànd ak wér sëriñ bi ñoo ngi sof ci kàddu sëriñ Moustapha Mbacke Douyoly mi nga xam ne moo jëlee ndigal ci sëriñ Moustapha Mbacke Madina mu jëlee ndigal ci sëriñ Moustapha Saliou mi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi ànd koog sëriñ Moustapha yi mu wax léegi sëñ Moustapha Massamba sëñ Moustapha Abdou Khadir ndawam léegi la fi jóge sëñ Moustapha Abdou Lahad ak mboolem seex Moustapha yi rawatina yi nekk ci kër gi di sëti seex Mouhamadou Moustapha ak doomi seex yi waaye dañuy njëkk jot li nuyoo Moustapha tout tànk yi ñi nga xam ne ñu ngi toll ci taggooguñu ak seen waajur wu jigéen li tax ñu koy wax mooy. ñoom ñoo mujj yeesal seen seeni waajur moo mujj yeesal seen pas-pas ci Cheikh Moustapha ndax sunu waajur yi ba ñu tuddee Cheikh Moustapha loola di dox ba tey ñoom ñi ñoom la seen waajur yi mujj yeesal seen pas-pas ñu nekk ay tuut tànk kon noo ngi jottali seen nuyoo soxla yépp boo ci gis muy dem bu tolloo ci caatlu ma nga doon ñaan naan yàlla ma yàlla may doom ba ma bañ tuddee ko Cheikh Moustapha soxna yépp yu ndaw yi koo ci gis ma ngi naan yàlla na ma yàlla may doom ba ñu tuddee ko Cheikh Moustapha lu ko waral xam nañ ne Cheikh Moustapha mooy njëriñal adduna ak àllaaxira dayre bii nag di Moustapha ak yaar di sa dayre nga moom ko ci saayir ak baatin te nangul nu ko lu ànd kook yow te mboolem kër yëpp seeni njaboot nekk ci ñoo àndandoo di la sant cant goo xam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem dañuy sant rek suñ kamtilaayal kàttan lu ko waral nangul gi nga ñu nangul ndax liggéey bii nga xam ne bii dañ ñu koo nangul muy daayira bi ba wëlbatiku nangul nu ko jox nu ko jox nu ci ndigal ne fu ngeen bëgg mu àgg fa mën na faa àgg ci yaatu loolu moo tax tey mu dem ba Amérique dem ba Angleterre ci diir bu gàtt ba gàtt gàtt waaye nag li si bi ñu teewee sa kanam te jóge fi nga yërëm nu bëgg noo dimbali te xam ne ndimbal li mu ngi gën a gaawe ci nga liggéey loolu ci nga ñu wooyee liggéey loolu bâtiment bii nga xam ne bii moo nekk sunu kanam ñu nekkoon ci bu yàgg ba tey te mu toll ci bëgg àgg insha allahu bu àggul ba jeexit màggal gi la nga ca bëggoon wax ne da ngaa bëgg gan ni fu ñuy dal insha allah mag bâtiment bi da nga ca dalal ay gan ci màggal gi donte amaguti lal waaye mën naa ami laa ak la ca war waaye yeneen jumtukaay yëpp. moo xam ndox moo xam wanag moo xam courant moo xam eh, lépp lu jëm ci karo ba àgg na insha allahu dañ ci dalal eggan ni nga ko bëggee te bëgg na loolu buñ ci jógee diir bu gàtt nu àggale ko jox la ko loolee nag lan bokk ak mboole yi nga xam ne ñooy ay section yu nekk ci réew mi ak yu nekk ci bitim réew tàmbalee ci section Touba nekk ca bopp ba section Italie section Madina section Louga section Diourbel section Tindodi section Bayla section Taïf section Dakar section Amérique ñoom ñoo nga xam ne ak Angleterre ñoo yor liggéey bi liñ fi jot a dajale noonu ko tàmbali woon ci benn panub rajab rajab nag sëñ Moustapha Saliou moo la ci joxoon ndigal ne woon sëñ bi dane salaatu sitta bi mat i sitta tax ci ibatamaati saay wëlbatiku nag kon nag loolu sëriñ bi doon liggéey ci juróom benn weer naa leen bindal yéen aw doxin wu ngeen di doxe muy benn panu rajab ak benn panu mu aram jël xalima ne xaar ma bindal leen daan nuy bindal ca loxoom bu tedd ba addiyat yii ilaa jumaada saaniya min al muharrami habat bi xaaniya min rajabin ila ijja la woo àll ya salawaatul hujja loolu la ñu bindal nu jël loolee jéem koo xam donte mënu koo xam nu sukkandiku ca ba tax juróom benn weer yi njëkk di muharram bis bii ginnaaw bu nu dajee ba màggal bis bi mu sant ci lan daje ak yow ngir nga xool nu sa bët yërmande yi tegg di yërëm nu dimbali nu ñaanal nu dénkaan nu digal nu xéewal nu nu fas yéene ànd yow liggéeyal Serigne Touba ba juróom-benn weer yi nu jëm di di rajab nu yeesalaat liggéey bi kon juróom-benn weer yéen jóge woon di rajab ci lan tàmbali woon liggéey bi ca benn pan ba kon liggéey bi bis na ka tey am na juróom benn weer ak fukki fan ak juróom-ñaar ci bisub tey foofu la liggéey bi toll li ci jot a daje ci xaalis boo xam ne taalib yi dajale nañ ko fi ba indi ko ci bañ def ko ci biir liggéey ba noppi toll na ci fukki million ak juróom benn ak téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom juróom ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak fanweeri dërëm ak ñaar juróom muy 5 millions 627 millions 27 mille 175 francs loolu moo ci jot a dugg waaye nag tax koo àgg kon nanu jaajuwaat nan takkaat suñuy laxasaay nanu yeesaat nan mel na ku mënta mës sa def dara ba liggéey bi mën a àgg ndax kat ngir nu àggale liggéey bi lan ko bëggee lépp àgg kaw ak suuf biir ak bitti lan war ci kër gi ñu def ko ci wàllu defaraat miir bi la war ci kër gi ci wàllu ay wanag yu ànd ak liggéey bi yu bokkut ak liggéey bi ñu def ko def ci ay wàll barab yoo xam ne yii daañ fa mën a defar ay loolu lépp buñ ko xaymaa toll na ci dix neuf millions euh, sept cent cinquante mille fukki million ak juróom-ñeent yu teg téeméeri junni ak juróom-fukk des na ngir nu mën a def li nu li jàpp na lépp war nañ koo def ci biir ak bitti kon nag defagul woon dara juróom-benn weer yi daal def nañ ci lii juróom-benn weer yi nu jëm bala noo àgg ca juróom-benn weer yan tàmbalee woon nan fas yéen def lii loolu mooy ndigal li kon bépp section bu fi ñëw na bu delloo na jaajuwaat. bépp taalibe bu koy dégg bu delloo a jaajuwaat bépp nit nit boo xam ne bii liggéey Serigne Touba ñor na la te jaar ko ci Cheikh Moustapha dëkk nañ la suñuy loxo waaye nag lépp doo ko teg ci ndigal ndigal rek lañ ko teg ndax liggéey bi sëriñ bi daf koo teg ci yoon ngir bëgg noo dimbali nu sant ko ci lool gërëm ko ci lool fas yéene def ni mu ko bëggee. Cheikh Moustapha yaa neex a àndal dal nga xel. wa man nga ruu yi fi àggaloon jébbal sa baay wa man nga gumba yi boot la fa ñuy teggal fa noo góor ak jigéen yaa di jox ay càngaay ku la daaw nga dab ku la fay nga fay le te doonu fayu mboolem jirim yeeg baayu yi yaay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yërëm di may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay. mi ngi nuyu mbooloo mi te di leen gërëm te di leen sant ci taxawaay yi nga xam ne taxaw ngeen ko. bi sosé daayira bi ak légui néna taxaway xamna ne taxaway pestef la néna yit taxaway talib la néna na yàlla tawfiixal na len ba ngeen jëf lo xamné lu ne lu fis la lu gis néna biñu len joxé ndigal ci ligéy bi ak légui yagagul te gis nañ macha allahu fi mu toll tey nee na loolu yi ngeen xamne positif la neena mbolam yéen yal seen wéju tuddu Cheikh mustafa neena yéen ko jëf mi ngi leen ci gërëm ngërëm li nag mi ngi jital Serigne mustafa salih neena xamna taxaway bim ci taxaw. biñ ko sosee bokk na ci ñi ko jëkk a yëgal. bi mu jotee digal it bi ñuy teg xeer wi moom moo ko teg si. nee na boobu ba léegi it loxoom jógu ci saa su ne it mi ngi laaj fu mu toll ba fii mu egsi nii tey macha allah nee li ngeen fi gis léegi moo ko fi yónnee. نانا لول موي خام لين كون لوخوم جوغي سي بن يون نانا مين كوي سانت موك بوكام ييم كو اندال ييب نكاي سيغ مصطفى مدينه مي سيغ مصطفى ديولي سيغ مصطفى عبد القادر اك سيغ مصطفى عبد الاحد اك سيغ مصطفى مصامبا اك مصطفى يجلس ييب nee na mboolem taalib yi ñu tuddee Cheikh Moussa yëpp mi ngi leen di sant dugg nañ ci biir ngërëm lool yi nee na xam na ne yéen a ngi doxi pësteef waaye du tee mu ñaaxaat leen nee na ngeen gën a góorgóorlu ci daayira bi yokk ndax turandoo yi macha allah bari na te ba léegi am na ci ñu ko yëgagut ñoo xam ne egseegu ci ñoom kon nee na dugg fépp ci réew mi. fu ne ngeen ubbi fa ay section ba képp ku Moustapha bu ko yëgul woon na ko yëpp te bokk ci nee mi ngi leen di sant di leen gërëmaat di leen ñaanal nag lu ci waay def daje cee ngërëmal sëriñ bi te lu ci waay defit it na ko gën a mën te yàgg koo def wasalaamu aleykum wa rahmatullah amiin sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoo ña daawaate Moustapha